koo xam ne julli jumaa war na ko rek julli korite tabaski sunna su dëgër la ci moom ku julli jumaa warul nag dañu sopp ci moom rek korite tabaski waaye du àgg ci sunna mel ne gone wala jigéen wala jaam wala kuy tukki tukki boo xam ne ñeenti fan ñëpp julli jumaa waru leen woon kon nag julli korite tabaski du àgg ci sunna ci ñoom day nekk rek lu ñu sopp
ku nekk di aj nag moom du ñu sunnaal ci moom jullit tabaski ga ndax yorante bi sallallahu alayhi wa sallam defu ko woon foofee ci mel ni tam nga xam ne dañ fay xëy si ci bisub fukkeel bi di fa sànni jamray xaqaba yi ñu fa dëkk te nekkuñu ci aj ga itam du ñu taamu ñu def mbooloo di julli julli tabaski ga ndax dañu bañ yóbbaale ca ña nekk ca aj ga dañu sopp rek ñoom kenn ku ne ci ñoom mu beru julli julli tabaski boppam
julli korite mbaa tabaski waxtoom mi ngi tàmbalee ci bu naasu la daganee mooy bu jant bi fenkee ba yëkkatigul toll ne ñetti meetar dana dem nag ba tisbaar bu tisbaar xasee jot julliñ ko nag moom jeex na kenn du ko julleeti ndax moom bokkul ci julli yi nga xam ne buñ rawee dañ leen di fay te moom du farata booliwu ci ñu fay waxtoom xasee jàll te wax ni ñu ko jullee mu ne ràkk bu jëkk bi boo ne allahu akbar muy armal da nga ci tegaat juróom benn kabar muy juróom ñaar nga door jàng nag fatiha ak saar ràkkam ñaareel ba nag moom booy jóg bàyyi ko ci sujjóot ba da nga wax allahu akbar boobu nga wax nag di nga jóg nga ci dolliwaat juróom mu juróom benn kon ràkkam ñaareel juróom benn allahu akbar la am waaye kàbbaru jógaale ba ca la bokk rakk bu jëkk nag moom mën nga ne juróom ñaari kàbbar lay doon waaye da nga ci wàññiwaale bu armal ba mu waalal mbir mu ñu toftale maanaam boo waxee allahu akbar be da nga ciy sësale ba ci sës doo leen teqale teqale bu yàgg maanaam ilimaan su waxee benn allahu akbar dana def teg teylu ba ñu ànd ak moom ci julli ba wax seen allahu akbar mu door a waxaat beneen li teqale kabari daal mooy ilimaan saa yu waxee benn dana ne patt tuuti bàyyi ba ñu muy jiite ku ne wax allahu akbar mu door a waxaat beneen ku bokk ci julli ba mën laa dégg kabar ba nag dangaa sori mbaa dangaa tëx kon danga koy tolloole soo jàppee ilimaan wax na allahu akbar rek nga daal koy wax tolloole rek noonu maanaam bu fekkee ne dangaa fàtte ci kabar yi benn mbaa nga fàtte yépp di jàng ba yàgg nag nga fàttaliku ko kon ndegam sëgg gooy ko rek yoogut da nga daal def kabar ba nga fàtte mbaa bu dee ab lim ñu bëgg nag nga baamuwaat dara ci njàng ma door a jàll nag ko ko su boobaa nag xam nga yokk nga ndax baamu nga baamu jàng ma ak yokk la kon nag nga sujjóot wax de salaam donte benn allahu akbar képp nga fàtte itam nag boo xasee sëgg rek koo dara koo fàttaliku da ngay jàll ba noppi nag sujjóot xabla salaam ndax benn bu ci lañ koy ber muy sunna su feddali ko nga xam ne bu ci limaan bàyyee benn rek dana sujjóot xabla salaam bu fekkoon yow maamun yaa ci bàyyi benn nag kon ilimaan dana ko gàddu moom su fekkee dangaa dikk fekk ilimaan kabar kabar yi ci ràkkaru jëkk bi ba tàmbalee jàng kon ngay tegale sa juróom-ñaari kabar rek pour tàmbal déglu am njàngam soo ñëwoon ci jullit korite mbaa tabaski fekk ràkk bu jëkk ba raw la nga fekk bu ñaareel ba boo ne allahu akbar armal da nga ciy tegaat juróom mu juróom benn ndax ràkk bu ñaareel bi nga fekk loolu lay am ci kabar su ilimaan salmalee ba nga jóg nag booy jóg nga wax allahu akbar ba noppi tegaat ca nag yeneen juróom benn mu daal nekk juróom ñaar dangaa ñëw ci jullit korite mbaa tabaski fekk ilimaan ca ràkkam ñaareel ba te rek koona ba jàll nga xam ne ay sujjóot nga fekkee ki taaya rakk bi mu njëkk a taxaw mooy sa rakk bu njëkk juróom-ñaari kabar nga cay kabar boo jóg da nga wax allahu akbar bu noppi nag teg ci yeneen juróom-benn ba juróom-ñaar
loolu mu wax mat naa jàpp mooy boo ñëwee di julli ci jullit korite mbaa tabaski fekk ilimaan kabar ba tàmbalee jàng fatiha jaag saar wa kon na ngay daal di kàbbar li mu kàbbar yi ba mu mat nga door a tàmbali déglu nag am njàngam nam leeralool nag mooy bu fekkoon ne da ngaa fekkee yenn kàbbar ya fekki wooye ci des da ngay xam lim ba nga fekkee bu ilimaan àggalee ab limum nga mottali nag lim booba door a tàmbalee déglu am njàngam nga bañ a fàtte ne yow maamu nag boo fàttee kàbbar yépp mbaa yenn ca kàbbar ya ba mu xas raw ni ki xas nga rukkoo da nga koy bàyyi noonu rek ilimaan gàddu na ko ilimaan nag moom nee nañu su bàyyi woon rek benn kàbbar dong te xas rukkoo dañ koy digal mu sujjóot xabla salaam te bu boobaa it nag maamu mi daañu ànd ak moom ca sujjóot googee
mboolem allahu akbar yëpp nag bu njëkk ba rek lañu sopp nga yëkkati say loxo jërës moom na ngay kàbbar rek saw làmmiñ te bañ a yëkkati sa loxo guddik xiit la bëgg a wax maanaam bu ñu nee subal korite mbaa subal tabaski guddi googee nga fonk ko dundal ko ci loo man ci jaamu yàlla taamu nañ ko moo xam min salaatin wa zikrin wa takbirin wa tasbihin wa istigfaarin wa yaxsulu bi tulusil axir min alleyli wal awla ixyaau kullihi maanaam bu di boo ko defee ñetti xaaj boo dundalee xaaj ba ci mujj rek day mel dundal nga lépp lépp waaye nag nga dundal lépp lépp moom moo gën a baax ci addis ba nee na man axyaa laylatal iidi wa laylatan nisf min chaabaan lam yamut qalbuhu yawma tamuutul quluub ku dundal guddik korite mbaa tabaski mbaa guddik nisfu chaabaan sa xol du dee bis ba xol yooyu dee bu ñu xolam du dee bis ba xol yi dee mooy moom bu tolloo ci ñu not ci ruuxam ak bu tolloo ci malaaka yi di ko laaj ak bu taxawee bis penc du gëlëm du jaaxle tey def teg dal ànd ak jàmm
sopp nañu korite mbaa tabaski nga sangu ca ngaay lu mel ne nit ñi sangoo janaaba boo bàyyee nag ba sa digganteeg ñu nodd fajar mu des waxtu nga xam ne kon nodd gu jëkk gi daal waxtoom jot na boo sangoo mu baax waaye la gën nag mooy gannaaw boo jullee suba bala ngaa dem ci jullikaay ba nga sangu
korite mbaa tabaski sopp nañ nga xeeñoo xet gu neex waaje yére nga gën a rafetle donte weexut ndax feeñal xewalu yàlla sant ko donte sax du kuñ digal julli ba muy sunna ci moom ndeki gone wala jigéen ñi nekk seeni kër nga xam ñëwuñ ci jullikaay bi du dee bu dee bis korite mbaa tabaski ñi taamu ñu rafetal seen waajtaay
bisub korite mbaa bisu tabaski lu kooka fonk di fonk di waajtaay ak xeeñoo lu neex sopp nañ rek mu fexe ba def ko sib nañ mu bëgg a naqaral boppam bëgg a teg boppam lu ko metti ba tax mu bañ a sol lu rafet bañ a xeeñ lu neex loolu daal biddaa la boo xam ne bu mata moytu la wa dalika li anna allaha jaala dalika al yawma yawma faraxin wa sururin wa zinatin lil muslimin yàlla daa def bis boobee moo xam korite moo xam tabaskee muy bisub mbégte di bisub waajtaay ci jullit ñi ba addis ba ne inna allaha yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdi yàlla daal bëgg na ab jaamam bu ko defalee xéewal jaam ba sant yàlla wane xéewal ga bañ xam ne lii jeex yi ci xéewal la gu ko yàlla defal ba ci bis boobu sax nee nañ mënees na cee bàyyi gone yi ñu foo mënees na caa tëgg sax am dënd waaye nag nañ moytu rek góor jigéen jaxasoo ja wala yunkaru fi dalika al yawmi laibu sibyaani wa darbu dufi ndax faxat warada maanaam daa root mooy daa ñëw ca addis ba
ba tey bu ñu nee gone jigéen yi sax bëgg nañ ñu waaj jigéen moom bu dee génn du sañ a waaj bu nekkee këram lañ wax bu dee génn du sañ a waaj du sañ a xeeñoo xet gu neex booy dem ci julli korite ga mbaa tabaski ga sopp nañ nga doxaw sa tànk te bañ a war bañ a dugg oto ba dara boo dee ñibbisi na moom day fekk jaamu yàlla gi jeex na moom mën ngaa dugg boo dee ñibbisi yoon wa nga awoon ba ngay julli ji korite mbaa tabaski sopp nañ boo wàññi ko aw ci weneen yoon wu bokk te woowa bu dee korite dañoo bëgg boo xëyee bala ngaa dem ci jullikaay ba nga mos dara mu wane ne wóoroo mel ne kon bañ la digalee woor wooroon nga biñ la digalee wor itam wori nga waaye bëgguñu nga xëy rek ci bisu korite bi jëm ci jullikaay ba te mos ko dara mel ne ba nga daa woor ca fani koor ga dañoo tàmm nag boo ko mën def tàndarma mooy la ngay lekk bala ngaa dem ci julli ga mu doon tàndarma te tóol doole ci bu fekkee amoo tàndarma nag mën ngaa góox ay góoxi ndox rek baax na bu dee tabaski dañoo bëgg boo xëyee moom bañ a lekk bañ a naan mel ne ku woor ba julli ji ba ñëw ba ñu rendi tabaski ma ñu andi nag ca res wa nga doge ca am
te amul tabaski it dañoo sopp rek bu xëyee bañ a lekk bañ a naan mel ne ku woor ndax sàmmoonteeg sunna soosu waaye nag bisu tabaski moom daa araama woor su àggee ci jullit ba ñëw te mën a gis lu bokk ci ndawal tabaski gu mën a doge baax na bu ko gisul yaakaaru ko it mu daldi lekk leneen lu dagg koor ga bu sa kër soriwut fa ñuy jullee julli korite ga mbaa tabaski ga sopp nañu bala ngaa dem nga bàyyi ba jant bi fenk nga door di jóg jëm ci jullikaay ba su fekkee da ngaa sori nag ba aajo woon nga teel a jóg kon nga jóge ci waxtu woo xam ne rek bu ko yaa dogalee da nga fekkee ji julli ga
ñu bëgg booy génn sa néeg di julli ji korite ba tabaski rek ngay wax allahu akbar te nga wax ca kaw bu àggee ba julli wuñu da nga koy wax rek ba ilimaan ñëw ba ñu tàmbali julli gi nga door a bàyyi kabar yi
dañoo sopp julli korite mbaa tabaski ñu wutal ko jullikaay boo xam ne dañuy dem ba ca àll ba mbaa boog bu dee ca biir dëkk ba itam muy jullikaayu boppam boo xam ne du bokk fa ñuy jullee julli farata ya dañuy wax ne julli korite mbaa tabaski ñu di ko jullee ci fa ñuy jullee farata ja moo xam jàkka ja moo xam jumaa ja bidhatun makruhatun bidaa la te lu ñu siba sib la illaa bi makkata lu may nag bu dee ci makka bu dee ca makka moom dañuy taamu ñu defe ko ci jàkka ji ca kaaba ga de bu doon ca madina sax du tee rek ñu sib ñu jullee ko ci jàkka yonante ba nee nañu nañ dem ca àll ba mbaa ñu seet beneen jullikaay bu bokkut ak foofa la tax nag makka moom ñu sopp ñu defe ko ci kaaba ga addis ba daa wax ne bis bu ne yàlla wàcc ci kaaba gi téeméer ñaar fukk ci ay yërmande yoo xam ne juróom benn fukk ya ñooy wër ñoo koy féetewoo ñeent fukk ya ñoo cay julli ñaar fukk ya ñooy xool nga xam ne kon xool ga kese dafa bari yërmande ñu sopp ñu defe ko ca jàkka yi kaaba ga mooy la addis ba ne yër silu xalal bayti fi kulli yawmin mi'atun wa ishruuna rahma sittuuna lil taifiin wa arbauna lil musalliin wa ishruuna lil naadiriina ilayhi julli korite tabaski gannaaw fatiha saar wa jàng mu baax waaye rakk bu njëkk sopp nañ gannaaw fatiha sabisma rabbika wala hal ataaka hadithul ghashiya rakkab ñaareel nag suratu shamsi wala suuratul layli
sopp nañ korite mbaa tabaski ilimaan def yaari xutba xutba yi nag day mel ni boobu jumaa ci balaa tàmbali bu njëkk bi day toog as ndiir bu jeexalee xutba bu njëkk ba ñu sopp mu toogaat as ndiir door a jóg def xutba bu ñaareel bi wa baax di yotuhuma ak seenu nekk ci gannaaw julli ga dañoo sopp ñaari xutba yi booyee korite mbaa tabaski day julli ba noppi door a xutba bu doon ajuma dañuy xutba nag door a julli waaye fii moom julli ji mooy jiitu xutba su ilimaan xutba woon ci korite ba tabaski ba noppi door a julli kon su jullee ba noppi ñu ne ko baamuwaatal ñaari xutba yi ndax mu topp julli gi te bañ koy jiitu xam ne kon baamu googee sopp lay doon sopp nañ ñaari xutba yi korite ba tabaski ilimaan di ko tàmbalee allahu akbar allahu akbar waaye amatul limite nag mën na ko def ñett mbaa juróom-ñaar mbaa lu ko soog rek bu demee ba ci biir xutba itam diggante boobu bëgg nañ mu baamuwaat fa kàddar yooyu moom it amatul lim mu ko toll rek baax na déglu xutba jumaa moom farata la waaye nag déglu xutba korite ba tabaski lu ñu sopp la
dañu ne woon ku jumaa nekk farata ci moom la jullit korite ak tabaski doon sunna ci moom mu ne nag koo xam ne kon julli jumaa du farata ci moom daañu sopp ci moom mu julli julli korite ak tabaski moo xam gone la moo xam jaam la bu ñëwee nag ci jigéen ñi moom jigéen joo xam ne màggat na ba góor ñi gisootuñ ko mën naa dem ci jullit ayit ga waaye nag jigéen joo xam ne ndaw la te xëy na mu fitnaal góor ñi ca buñ ko gisee te araam mu dem ca bu dee nag ndaw la waaye waajut te amul taar xëy na du fitnaal kenn kon mën naa dem jaam julli jumaa waru ko woon bu dee nag jaam boo xam ne bu sotti la balaa dem na am ndigal door a dem ci julli korite ba tabaski lañu waxoon ca jumaa ja bu dee jaam buy jot boppam nag moom lañu waxoon ci jumaa ja mën naa jekki-jekki dem te amu ca ndigal fii ci korite tabaski it noonu la mel boo xam ne daa ñëw fekk limaan julli ba noppi daañu sopp mel ni moom dong mu julli julli korite ga mbaa tabaski ga ndax bi doonee ñaar mbaa ñett itam ndegam ilimaan di sëlmul ne duñu sopp ñu def ko mbooloo dañu bëgg kenn ku ne beru dañ bañ a def mbooloo
sopp nañ bu dee tabaski bu ñu tey la tabaski ki tey jii di àllarba boo jullee si baat te tey tey bis tabaski dañ sopp boo sëlmalee def kabar yi julli farata goo defate rek boo sëlmalee def kabar yi nga wàññi bisi nag boo nee tey la àllarba muy benn alxames ñaar ajjuma ñett gaaw mooy nekk ñeenteel wa gaaw na boo jullee suba ba def kabar yi foofu nga koy bàyyee ba déwénee ci te itam julli goo rawoon nga di ko fay nag boo sëlmalee doo kabar julli goo julli ci waxtam rek lañ sopp boo sëlmalee nga def kabar yi moo tax boole ci waqti yetam jële su fekkee da ngaa sëlmal te fàtte def kabar yooyu waaye gaaw nga koo fàtteku kon da nga koy def rek mu daal di baax waaye nag bu yàggee mbaa mu jënd fa nga doon jullee nag say boo bàyyi ko
kala doon jiite julli farata ga su fàttee kabar ci gannaaw ba mu sëlmalee kon nga daal di gaaw yow kabar te nga fàttali ko boo gisee itam kenn koo ko fàtte na nga ko daal di fàttali ngir yàlla dañoo bëgg nag kàbbar yooyu sës ci ba nga sëlmalee bala ngaa tasab
maanaam booy kàbbar kàbbar yi bëgg nañ nga defee ko ni ñu ko déggee ci yoon nga ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar yetti yoon loolu rek nee nañ moom ñu ci gën a taamu am na bañ netti nag bu def allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walilahi alhamdu boobu itam baax na su fekkee fañ jullee julli xiit ga day jullikaay buñ ko sàkkal waaye du jàkka kon moom boo dikkee doo naafila ci njëkk julli gi bu jullee ba noppi itam doo naafila doo dikk rek toog bu jullee ba noppi itam ngay dem rek waaye foofu sib nañ ko fa naafila doon jàkk nag moom nit ki suñu koy def ci jumaa ji léegi moom buñ sib boo dikkee nga naafila wala buñ jullee ba noppi nga naafila